il était là ci Abasso mais tout le laajaat nañ ko ardo ne nañu indil mbokka yi mbokka lebu ay eh, mbokka lebu tàccu leen ardo bu baax a baax a baax a ah. <laughs> ana ma mbokk lebu yi ana ngeen alam lebu alam lebu ana ma mbokk limu yi aw na limu aw ala limu ee eh, en eh, en eh, nan ngeen ana limu aw na ko dama ala limu ala limu voilà merci de me remercier ziar naa leen bëgg naa leen ñu ñëpp waa grand théâtre di nuyu seen nom seen prénom seen x nom ak seen double nom bu weesoo comme ni ko Abba waxee rek lébu yi <laughs> lébu yi dañoo tàmm bu nu jullee fajar ba noppi ba ñibbi dañuy àndandoo def génn ligne <laughs> ligne la ñuy def di wer di wer du lébu ña ngi naan alam la sii alam la alam la alam la di dox rek di dem ndeysaan li ñu àndandoo di dox naan alam la sii alam la ba jéggi raay bi rek benn benn train romb fiw bi train bi rombee dégg man lu tolloog une minute jékki-jékki ni tël rek benn lépp daal jël micro bi ma nga lebu ee ma am na lu mbëkk di am na lu mbëkk gars yi bi ñu xoolee fekk muy nag woo xam nag wi bi ñu xoolee nag wi jañe su ko nag wi toll na ci quatorze tonnes six cent quatre-vingt-quinze mille cinq non proposition la rek damay rek boo pét ma wàññi ma def ko 10 tonnes 11 tonnes 5 tonnes fa laa a yem lébuy daal di commencé woote xam nga rek seen mbokk yi xas yegg yee mille fan mu déy mu déy daw si daw si ana nag ana nag gars yi commencé dagg di dagg si nag xoola eh xat sekk ba dagg noonu maay dagg fii a ah, bët sekk eh eh yi bëggee ba dagg noonu nga si bàyyi maa la dagg fii ah ba dagg waay daal di xëccoon nag yi nag wi jeex tàkk ca suba sa ñu julliwaat fajar ba continué waat defaatu liñ waaw ñoom liñ rek ña nga naan alam la si alam la si alam la si alam la raay ba jéggiwaat raay ba dégglu ni tëll bi mu dégglu tëll rek paa bi daal dawaat comme bee mbëkkoon na mu dalliwaat mbogal la wu mboga yee mbogal la bëggoon mbogaat na de la mbëggoon mbëggaan na gaa yi ñëw muy xoolal xëccoo eh Iba Dieng maa daggoon fii dem aw aala dagg de xoolal eh xat Cheikh bal dagg nii yow tamit bal dagg foofu bal maa la dagg bal dagg nii daa di xëccoo nagoo ba mu jeex tax ñu yóbbu ca dëkk ba dëkk ba naan sal sal saxaar si ña ngay lakk yàpp ya ñee ngay rago ñee ngay supp ñee ngay sombi ñee ngay laax aha ñee ngay <laughs> def lu leen neex kenn ku nekk dégg maam dëkk ba daal naan jër jër jër ñu naan la xoj dëkk ñu naan dañu aw nag ñu lekk ba mu jeex tàkk ndekete bi ñuy génn am na benn paa bu ñu fàtte ci jàkka ji xam naa ni mu doon werde ngelawal fajar gee ko jàpp mu jàpp nelaw paa bi daa jékki-jékki ngelaw ñu upp ko rek paa bi di xifeet daal di mu xaw a leer tuuti mu daal di gàddu kurus gi moom dong nag ah kon xam nga ko <laughs> kon xam nga ko kon ma nga naan alam la sii alam la alal les yi alal les ba fi gars yi doon xëccoo nag bi paa bi daal di xool ni mu xoole gis ñu dagg lépp ba mu jeex tàkk ba mu des geenu rek paa daw jël micro ba mboxa yee mboxa libu ka lekkoon yabil ka toggoon yakal ala xuux de ala xuux de ala xuux de mango kon alam xoox alam xoox daa ngeen jëf daa jëf daa jëf <laughs> daa jëf waay jëf leen ko bu baax a baax a baax a